ma nag damaa nekkoon daar dëgg la ndax dama fi doon def ay délai rek sama pap jël ma yóbbu ma daara waaye man foofu dama faa sonn heure ma dóoree benn jour su guddi ko sa damay fàq dem su ma fàqee fanaan si suuf jot yalwaan deux cent dem jënd mu nambe dem lekk ngoon jot ma jël pot duma am fu ma ko raxase mu tilim lool ma dem dugg si kër yalwaan su ma yalwaanee lekk ay njaxasaan guddi si duma am lu ma lekk damay ñëw tëddaat si suufu oto yi mais man damaa ñàkk jom heure bu ma heure bu ma jël si